ay jamono dama bootu woon si ay parti politique mooy bi ma bokkoon te le frère secrétaire général muy président laa jiite ko ma koy ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla na ko yàlla sàmm yàlla wéral ko yàlla dëgëral ko su ma suñu borom joxee tur tey ngir yàlla ak jëmmam la man duma ma fakk jëf mukk si àdduna réeroo politique mën naa am mais moom xam na ne jàmm laa ko yeneen parce que suñu baay la ma koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral bu ñu demee tey bay taxawal parti politique parce que si keppaaram la ñu jógee parce que fii tey am na ay wa am na ay démocrate yu fi toog parce que man si jeune démocrate am na waa PDS yu fi toog parce que su may xarit lañu kon dama jàpp ne Abdoulaye Wade yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér li may tari tey si keppaaram laa ko jële moo ma yar tette ma taxawal ma ba ma mën lii tey loolu ba ba dee duma ko fàtte te maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom